deux mille vingt bi moo nekk nii rangé bii nii ak deux mille dix neuf léegi étagère bu nekk dinañ nañ lu ci nekk maanaam étagère bii nii de un à cinq mille trois cent cinquante moo nekk fii nii pour deux mille vingt deux mille dix neuf am na de un à deux mille cent moo nekk fii nii pour rayon bu nekk nag bind nañ lan moo fen deux mille dix neuf pour document deux mille dix neuf bi euh, numéro bi deux mille cent un ba quatre mille deux cent cinquante moo nekk fii nii moo nekk fii waaw moo fi ne registre yi tamit numéro yi mu ngi nii dañ ko aligné de telle sorte que boo ñëwee automatiquement da ngay gis mhm. par exemple booy wër numéro deux mille quatre cent mhm. xam nga ni moo nekk nii mhm. booy wër beneen numéro da ngay gis ñëw rek gis bàyyi nañ espace entre rayonnage yi boo ñëwee dangay génnee nga xool li nga soxla nga delloo waat ko dankaloowul de telle sort dañ koy mën a génnee étiquette bu ñu tax na contenu woon moo nekk nii suuf. Mhm. pour année deux mille vingt. Mhm. de un à deux mille cinq cent. contenu bi moo nekk nii. Mhm. moo nekk nii moom lañu ñu rangale dañoo topp logique linéaire. nii lay demee. plus muy gën a dem plus muy gën a wàcc en année. moo nekk nii moom lañ topp ba fii nii. loolu moo nekk nii moo nekk nii. Mhm. plus on avance année di gën a wàcc lii nii deux mille treize la. Mhm. ainsi de suite deux mille onze. deux mille dix ci suuf waaw. mu ngi nii premier saison bi c'était à Touba avec le ndigal du du du du khalife général donc Serigne Mountakha général des Mourides moo mën a recevoir santoon leen liggéey bi foofu à travers peut-être ma personne ñu paree foofu également ma waxtaan ci ak maire Mbacké moo am une oreille oreille attentive. réceptif wax dëgg yàlla bu ma waxee idée bi mu ne ma loolu moom bu ñu ci xaar dara parce que Mbàkke moom la ñor donc lu ñu fi def ci état civil maa ciy jiitu moo waral après ñu contacté waat leen euh, ñu ñëwaat tey je pense nañ de démb ak tey liggéey bi ñu fi liggéey également gis ngeen ko donc c'est juste pour remercier ko encouragé leen parce que ay jeunes la yoo xam ne ni euh, wax dëgg yàlla bu ñuy def nii ñëpp a amul tey ci administration wala benn secteur bu am waroo am archiviste dañ ko soxla donc dañuy wax rek ñëpp jël initiative bu mel nii muy les autres maires ak ba ci administration publique bi ñu jëm leen contacter liggéey ak ñoom mais ñun département Mbacké particulièrement man président tribunal d'instance donc je suis tellement satisfait kontaan ci ñoom di leen remercier di leen encourager di wax ñun à chaque fois ñoo ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi lépp lu ñu xalaat ne ñun suñu taxawaay war na fa am ak ñoom ñun également dinañ leen ci déglu donc di remercier waat